maa ngi tudd Alioune Badara nekk fi Croix Rouge jeunesse camaraderie doon fi aspirant yàgg fi lool nag mosuma fee am lu ma naqari tontaay tonton yi ak tataay saa yu ma leen xoolee damay jàpp ne suñu kër laa nekk ndax man dañ maa jàppee comme samay comme seeni doom daal ma jàppee leen comme samay parents ma nit su ma ñëwee am dara lu may tiit wala lu may ragal fii ñun tee nañu téegu baax yar nañu jàngal nañu àddina xamal nañu lu bari loo xam ne man xawma ko woon te sama yaay tamit xamu ko woon sama papa xamu ko woon gii de ma nekk man ba fi nekkee ba léegi dara lu ma métti amu fi musuma gis ku ma saaga musuma fee gis ku dóor wala nga may yuuxu musu fee am tataay kay moom leen lañ leen ñaanal ñu am jàmm rek yàlla defal leen luñ luñ bëgg ñoom ñoo xam yàlla na leen ko yàlla defal waaye gi nga caméra durée bii de xam naa ne sax am na ñu fi bëgg indi seen doom wala ñu fi seen doom bëgg a ñëw waaye seen xel du dañ naan caméra ay fecc ak yi way kase la am duñ fa yóbbu suñuy doom te naam loolu am na de waaye du loolu kase la ñuy def dañuy jàngal dañu xamal àddina fii nii de moo fi ñëwee ba léegi sama xel dal na moom sama xel dafa dal bu baax te maa ngi sant yàlla bu baax fu ma daanu jaar yu bari maa ngi fay ñemee jaar te du ma ñemee sëgg du ma ñemee sëgg fu ma neex laa ñemee jaar bu ma gis man cër gi nga yelloo naa la ko jox tout ça à cause de vous Croix-Rouge depuis ma am 6 ans nag maa ngi fi mais li ma fi jàngatee bari na trop parce que def nañ ci man yar teggin du manu kese mais mën naa wax xale yëpp ndax su ma taxawee di wax waxuma man pour man kese ñëpp laay waxal. ñëw nañ fii nekk nañ fi duñ gisuñ ñoo xam ne tata boo xam ne dinañu saaga wala mu wax ñu loo xam ne daf ñuy dépassé wala mu yuuxuñu wala ñu gëdduñu loolu yarul xale alors que ni ñoom ñu ngi ñu yaree boo xam ne yar nañu yar boo xam ne tey ji bu ñu toogoon def loo xam ne waruñu koo def suñ ñu xoolee sax si bët ñu xam liñ ñu bëgg a wax te suñu jàng école ñun ñëpp dañu ciy jàppale di ñu wax nii ngeen war a doxee nii ngeen war a jaar lii ngeen war a def ba si tax na xale yi nga xam ne sax am nañ moyen yu gën a kawe nekk primaire dañ leen a war a décorer tey jii man maa ngi nekk classe terminale teewul chaque jour li ñu may wax wutal bag bi bag bi boo ko amee bag nangam bag nangam noonu lañ koy waxee de même que élèves yi nga xam ne ñu ngi nekk di def yeneen classe d'examen yi dañuy jàppale bu baax a baax Croix-Rouge moom ba fi nekk léegi macha allah gisuma si ñoom benn défaut en fait dam respect bi ma amoon kay dama naan dafa gën a yokk ndax tey jii nii su ma génnee def am benn feet ma génn jógee camarade de croix rouge dem suñu kër su ma génnaatee xëy jàngi dañ naan kii lañ gisoon mu ngi nekkati kii ni mel yëpp kon élément croix rouge la déedéet xamuñu woon loolu loolu la nit ñiy wax ndaxte niñ ma mel li ma mel léegi camarade de croix rouge la ma waa élèves yi tamit dañuy góorgóorlu lu baax ndaxte am na ñoo xam ne ay moyenne 15 la ay 16 ñi ngi jàng macha allah ba si élèves primaires yi ngay gis koo xam ne mu ngi jël première am am na fi élève boo xam ne deuxième la jël mais ba mu jëlee deuxième tonton Tafa moo ko tiim fii wax ko lu nekk ba mu pare dafa jëli première xam nga kon loolu camarade de Croix Rouge moo ko mën si xale. am na loo xam ne parents yi mu ngi koy def si ñun de mais matalewuñu lépp alors que ni nag ñun ñu ngi ñaax parent yi ku yor sa doom boo xam ne am na 6 ans mu ñëw boo ko camarade de Croix Rouge jeunesse. kontaan rek kontaan ndaxte nga xëy wàcc sa famille nga ñëw fii tamit fekk fi beneen famille boo xam ne. macha allah mën nañ wax loolu ndaxte fii ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay am na ñoo xam ne tey jii tata Fatou tontoo laat ñoom ñoo du duma ñëw sax tey duma leen sax jaar seen du ma wax tax tata seen tur laay jaar ndax lan dañ ma dañ ma xoolee bëtu rakk ma def leen mag te bu ko neexoon ñu ne dépassé nañ niveau boobu noonu mais amul fi ñoom ñëpp dañoo ñëw maasandoo ak ñun tey jii su ma bëggee dara tonto Modou Gueye lii laa bëgg bu daw jëndi alors que ni dañoo woor dañoo dañoo togg ndog ba pare ma ne leen tey màdd laay ndogoo ak béji dugub ñu ne waxal rek yow loo bëgg loolu lay am imagine leen loolu kon xam a tey jii dañoo dañoo ubbil seen bopp daal. waaw mbégte ak contentement bu baax a baax tey buñ fi dajee ak gis xale yi ak xale yi fi jot a jaar liñ wax ñu xam ne mbégte la ndax Croix-Rouge bu mbakee ku ko xam xam ne ci ci lii nga ko xam activités yi nga ko xamee muy jàppale xale yi ak lépp loo xam ne maanaam askanu Mbàkke soxla nañ ko. tey boo gisee xale yi macha allah li tax ñu sonn ci ñoom mooy ay jàngkat lan ndax nit boo koy dimbal day fekk mu dimbala boppam ba pare te xale yi macha allah am nañ yar am ñu teggin liñ leen sant tout le temps ñoo ngi fa moo tax ñu jàpp chaque at dañ koy def di dajale xale yi di ndogoog ñoom ndax ñun ay famille lan amuñu lu dul ñoom moo tax tey bis bi am. li ma leen di rek mooy xale moom bu tollee ci jàng day jàng. ndax ñun li ñuy gën a ñor ci xale yi mooy seenum njàng ci la ñuy xëy ci la ñuy gont nu ñuy fexe ba seeni njàng di jëm ca kanam ci la ñuy dox kon képp koo xam ne ndax coow li bëri na lool ci camaraderie dañuy way dañuy fecc rek la ñuy jàngal xale tey xale yi ku xool seeni moyen nga xam ne xale yaa ngi jàng te njàng rek lañ leen kii moo tax képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu ñoo ngi lay woo ci camaraderie bi nga xam ne mooy mooy mooy bu Mbàkke ñu ngi leen ci woo képp kuy dégg suñu kàddu ngir nga ñëw nga jàpp ci indi xale yi ñu ànd ak ñoom liggéey. Ah, sant yàlla rek comme d'habitude nuñ ko daan tàmm di defee ah, ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci camaraderie bi maanaam ñu ne ci bureau bi ñoo boole suñuy dërëm ak suñuy tànk ne tey dañuy bégal suñuy xale ah, muy maanaam jeunesse bi nga gis suñu ginnaaw. ànd ak ñoom ñu nekk xale yu neex a bégal nag ñoom it yendoo ak ñoom ci suba ba léegi atte ñu xeex xuloowuñu ak ñoom gisuñu leen ñu def lenn loo xamante ne nii te loolu yëpp ci jàng mi la bokk parce que dañ doon xool ba xam dinañ fi gis ñu war a corriger ci gisuñu lenn loo xam ne lu ñu war a corriger la ci ñoom waaw xale yi seen jàng ni mu demee ci croix rouge sànq am na benn aspirant bu ko ci wax Alioune Badara parents yi dañuy faral di wax que ni croix rouge fecc ak way la or noonu man mi tata Fatou Mbodj ji wax ak de 6 ans laa ñëwoon croix rouge bi ma ñëwee jeunesse laa newoon su ma fi gisoon lenn loo xamante ne lu yàq sama jàng la samay parents duñu ma fi bàyyi ba ma am fi at yi ma fi am xale yi seen i jàng macha allah bu ñu ñëwee fii nii dinañ leen bien vrai que ni dinañ leen jàngal waaye dinañ leen jàngal ci waaye way yi ñu leen di jàngal ay message la yu ñuy jàllale ci ñoom te noonu lañ ko gën a mën a capté am na fi tam ñu fi nekk ñoo xamee ne waa pédagogie la ñoo leen di jàppale ci seen wàllu jàng bépp euh, euh, matière boo xamee ne xale yi gis nañ fi ne moyenne bi dafay faible dañ ko fay jàppale fii ci croix jeexintal bu doy waar mi ngi commencé ci une ndaxte am na ci ñoo xam ne ñu ngi toog fii naan ay tata ñun bu ñu mënoon chaque jour di ndogondoog yéen te ku ne xam na ne koor saxul mi ngi waaj a jeex te ñoom ñi ngi ñi ngi am yéene yi di ndogondoog ñun chaque jour jeexantal biñ ci am ñoom ñu am ko ci ñoom xale yi ñun mag ñi moom lañ ci am mooy wéet ndax dinañ leen nammul ndax bu ñu sañoon li chaque jour dafay am di ndogondoo ak ñoom non yàgg nañ ko def euh, parce que beneen responsable mi ngi fi bi mu jugee lañu la ñu jël relève bi ñun moom bi mooy suñu première édition di lancer parents yi ne leen nañ xool ci xale bi jaar Croix-Rouge nekk ca koñ ba wala ca kër ga xale bi ñuy bàyyi ca kër ga ndaxte chaque jour à chaque fois ñun du ñu jay suñu bopp mais produit Croix-Rouge mënul yem ak dara ak fu ñu manti nekk ba ci ñun ñii doon seen i mag da ngay wax benn yoon dañu la naka jekk ma xam ne élément croix ga nga kon nañu bàyyi xale ñu ñëw Croix-Rouge euh, njariñ mi ngi fi. di wax ci turu euh, El Hadj Mbaye Sall président comité départemental bu Mbacké voilà tey nag daa mel ni euh, li ngeen fi gis tey mooy journée la boo xamante ne bii camaraderie bu Mbacké ñoo ko organisé mooy les encadreurs yi nga xam ne ñoo yor camaraderie bu ci njiit la soxna faatu Mbodj ànd ak sëñ Moudou Guèye ak ñi ngeen gis ñëpp ci bis bi yore ko yàlla dafa dogal bii mooy ay édition yu baree baree bari waaye ñi ñoom ginnaaw bi ñu ko yoree ba tey bii mooy seen première édition soxna Fatou Mbodj ànd ceeg euh, encadreur mbakke yi ak xale yi ak comité départemental bi naa lan defal xale yi loo xamante ne bii da leen di bégal seen yéene moo doon tey ñu ànd ak xale yi ak waajur yi ndogondoo ci benn bis waaye yoon yëmu ci benn benn ko waxee comité bi comité bi jox leen ci ndigal ñu wéyal ko lii ngeen fi gis lépp mu di bernde ak ay kado yu ñu jox xale yi gis ngeen ne seen poche ñoom la jóge kenn defu ci ñaari dërëm demunu tàllal loxo ci biti ñoom ñi nga xam ne ñu war xale yi la ñuy amakas niiw mu bari wala mu néew la ñuy ay dërëm dajale ko defal ko xale yi tey ngir ànd ak xale yi ci bisum mbégte muy loo xam te bi comité département da koy rafetlu bu baax a baax a baax ah, bis mi nag daanaka ñaari njàngal lañ ci mën a ci njëkk mooy bokk ak ñi nga xam ne yaa koy jàngal muy xele bi ngeen bokk ay ati at nekk ko walay weer bis ñëw nga ndogoon ak ñoom lekk ñoom saafoonteeg ñoom dañ lay gën a ñemee non seulement am nañ ci yow confiance waaye dañuy gën a am affection ci yow ba la la waajur wa mala lan muy yaay ja wala baay ba ci kër ga ni nijaay ja bët boobee la ñuy xool Tata Fatou Mbodj bët boobu la ñuy xool tonton euh, mu Gueye bët boobu la xool encadreur yëpp bi ci des mooy damaa gis ci seen biir njàngalin ñoom diir bi nekk xale yi ci at mii ñu xam ne ci leen jël trône bi gis naa ne xale yi lu baree baree bari changé na ci ñoom bi ci ëpp solo mooy jàng ak jàngale gis nañ ne bépp waajur bu bàyyi sa doom mu ñëw camaraderie croix rouge li ñu njëkk wax mooy baa dafay jànge su ngeen gisee ñu nang jël ay cadeau jox ko ay xele ci neexal leen kon ñoom bàyyi nañ xel ci njàngam xale yi non seulement bàyyi nañ xel waaye ci biir ji ak yi dafa am ay jàngalekat yu ci nekk yoo xam ne jàngale mooy seen métier ñooña la jox xale yi ñooñu leen di taftalal di leen jox renforcement pédagogique di leen jox ay remédiation ak ay révision ci consolidation ci jàngale ba xale bi loo fi indi ci moyenne soo tàggoog ñoom moyenne ba day yokk seen slogan mooy xale bu fi indi moyenne 5 déwén bëgguñu ci moyenne 5 6 lañ jëm 7 voire 9 ba 10. loolu la ñuy sàmm ak xale yi muy primaire bi muy collège bi moo tax dañu sant bu baax a baax a baax non seulement ci initiative bii ñu def waaye ci njàng ak njàngale bi nga xam ni nii moom lañ jiital soog cay takk leneen yi nga xam ne c'est des activités lucratives ay chansons ay activités manuelles travaux manuels yooyu yëpp ñu koy def loolu nag njëriñ bi mu am mooy. non seulement da ngay jàngal xale bi ci message à travers des chants à travers des activités manuelles waaye soo ci jógee itam di nga jàngal xale bi civisme savoir vivre vivre ensemble et vivre dans son milieu yii yëpp ñu wax ko nag xale bi moom la ko waajur bu santan mu koy am ci kër ga mottali bi fii ci Croix-Rouge la kon loolu daal moo doon sabab bi di lancer appel ci bépp parent boo xamante ni bi yaa ngi ci département bu Mbacké am doom bu toll di war a jëm camaraderie ndax Tata Fatou Mbodj mii ngeen di gis camaraderie la jaar grâce à la Croix-Rouge ñeneen ak ñeneen ci ñu mel ni ñooñ jaar nañ camarade bi ba tey ñu unifié doom wala seen i rakk te loolu la ñuy séentu ci ñëpp kon bépp parent bu nekk ci département bi ñoo ngi lay wax ne la Croix-Rouge ngi ni ubbil nay buntam ñëpp ku fi am sa doom boo xam te ne bii bëgg nga njàngam gën a ñoŋ nekkinam gën a ñoŋ xam àddinam gën a ñoŋ xam dëkkam gën a ñoŋ ak yaram ak i yar ak i tegginam indi ko ci Tata Fatou Mbodj ak ñu àndal dinañ la ko yaral yoral la ko topp toppatoo la njàngam ba mu jaar fi mu war a jaar su matalee juróom-ñett fukki at ak fukki at juróom-ñett ñëw jaar croix am diplôme Croix-Rouge man fee def yeneen activité njàng du fi yàqoo gis ngeen ne na lay def am na fi ay jàngalekat te ñoom ñëpp fii leen jaar ba tey ñu nekk leen nekk tey ak waa kër docteur sama ginnaaw kon daal c'est ça di lancer appel aussi bonne volonté yi bépp bonne volonté bu nekk ci département bi kii def yàlla tax tàllal na la loxo nga ñëw jàppale camarade Dre bu Mbacké ci seen i man-man ndax lii ñoo ko defal seen bopp ñaan nañ yàlla itam su ñuy dem ba école tëj ñu waxtaan ak waajur yi ànd ak xale yi dem defi ay sortie pédagogique ci yeneen région xale bi mën a découvrir yeneen lu bees loo xam ne da koy yokk xam-xamam yokkam yaram mais yokkam njàngam loolu daal mooy suñuy naal incha allah bi ci weer yi voilà lii activité la benn boo xam te bii a faar na beneen activité xam ne semaine prochaine incha na noo jox ñi ay waajur lan di ay borom kër te seen loxo jur seen ginnaaw te korité gaa ngi ñu war a jox seen njaboot korité loolu itam ñoom ñii tey nekk sol mbubam camaraderie suba ñoo koy summi sol mbubam réponse aux catastrophes ñoo koy summi sol mbubam euh, social ñoo koy summi sol mbubam couverture médicale kon Croix-Rouge yenn ant benn la mais dafa bari kuréel ci biir ku nekk ci ñoom yaa ngi fii ëllëg yaa ngay jàppale keneen kon ñoo ngi di sànni itam ab appel semaine prochaine di leen defaat lu ànd koog waajur yi nga xamante ne bii soxla leen dimbal ci département bi ñu ànd ko war a tànn muy action sociale ñu tànnal ko ñu defal leen sargal leen comme ni sargale tey xale yi chaque jour durant weeru koor yëpp ngoon gu jot am na équipe bi monté juma ñi ma xëy yow élément croisé nga jumaa ja di jàppale waa jumaa ji daayira ba di jàppale ña fay ñëw di ziar ak ña fay ndogoo beneen équipe baa nga kër Sëriñ Tuubaa ga résidence Seexul Xaddim xalif ba di fa nekk fa njàngum xasida ma beneen équipe ba nga fa boo xam ne chaque ngoon durant koor gi waa kër docteur ànd koog sami ak sapeur pompier ñoom itam ngir tàllal loxo goo xamante bi Hizbut Tarqiyyah tàllal na ko la xalif ko loxo la porte-parole tàllal la Euh, auxiliaire au pouvoir public la féet pour ñu tàllal loxo rek ci demee noonu lañ koy jëm moo tax tey ñi may wax yow sunu askan yëpp wala sunu élément yaa ngi ci béréb yooyu ma la wax te suba ginnaaw suba ñoo ngi feneen lii mooy la croix rouge mais slogan bi mu ju mooy aidez nous à dimbali leen ñu dimbali askan mi ko soxla moom la Fatou Mbodj wax moom la Mourou Gueye wax moom la sunu président Alaaji Mbaye Sall wax moom la croix rouge di wax aidez nous nu jox ci askan wi ñu koy demee koy joxe ba mu jeex soog laaj la pour jox askan wi ko soxla